RFM Matin. Assalamu alaikum, Oustaz Mortiam. wa alaikum salaam wa rahmatullah barakaatu Georges delloo na le nuyo bi ak ziyaara bi. Ma ngi lay ziyaar itam Oustaz Mor Thiam ñu indil tay ci yobul yóbbalug alar bak tay. waaw Georges yobul bi tay tey da fay ñëw ci ñent yo xamne julit bu ci sax. se wërsëg dina yokku. ak ñent yo xamne boko sagane mu wañi se wërsëg. ñeenti yi nga xam ne boo ci saxee sa wërsëg di yokku mooy naafila guddi di baril di def astaxfirullah ci fajar ak di bari looy saraxe ak di tudd yàlla suba ak di ko tudd ngoon ñeenti yi ku ci sax sa wërsëg day yokku waaye ñeenti ngi nii nag yoo xam ne ku ko tàmm sa wërsëg day wàññeeku George mooy biddanti biddanti képp ku ko tàmm sa wërsëg du yaatu di sàggane jaamu yàlla bu mel ni julli ku koy def sa wërsëg day wàññeeku ak tayyel tayyel nit ku tayyel wërsëgam day wàññeeku nit ku bari woor tamit George bu wërsëgam day wàññeeku kon ñeent yi ma mujj a wax day wàññi wërsëg biddanti néew jaamu yàlla tayyel barilooy looy yiy yokk wërsëg nag mooy di naafila guddi di bari def ci fajar ak di saraxe ak di tudd yàlla boo xëyee ak boo gontee George jërëjëf oustaz Mor Thiam ëllëg alxemes ci beneen yi beneen yóbbal eh,